mbokk yi seen jën ñëpp ràññeeku ci liggéey bu am solo liggéey bu am qualité bi nga xam ni moom lay def ci ay jën yu am qualité nekk fii ci VDN di janoo ak cimetière Saint-Lazare moo leen di may seen émission Sirra di leen ñaanal weeru kooru jàmm aoudu billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin fa hamdan liman fi samai ilah wa fil ardi ilah wa salatu wa salaamu ala man usriya bihi layla sayyiduna wa mawlana muhammadun man naala ma naala nayla wa ala alihi wa ashaabihi gurril muhajjalin wa summil mubajjalin mushahidina alkiram wa mutabiina abrat alfadratikum almufaddala télévision Futurs Médias nuxayikum bi taxati lislamiya wa naqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina Muhammad ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias di leen nuyu waaye itam di leen ziar di leen ndokkeel ci weeru teddu barkeel wi le muy euh, weeru koor di chehru ramadan yal na yàlla may nu yàggale ko ci jàmm yàlla it ma nangul ñu sunu koor yàlla may nu fekk ay at yu baree baree bari kenn bañ a manqué ci darajey Sayyidina Muhammad nuyu bu baax a baax kilifa diine yi na ci biir réew mi nuyu kilifa aada yi ñaanal mboolem xalif généraux yi na ci biir réew mi yàlla gën leen fi bàyyi nu ànd ak wér nuyu borom réew mi nuyu borom kër gi nuyu bu baax a baax a baax a baax sunu soppe yi nga xam ni bés bu jot ci heure bii nu ngi ànd ak nun nuyu leen ziar leen mbokki mi ngi noonu ñu ngi nii direct fii télévision Futurs Médias ci suba gi waaye itam ànd ak yéen waxoon naa la ni la télévision Futurs Médias dañ ma waxoon ni ma bu ñu sañoon bis bu ne kër gu ne ñu dugg fa jox la seen suukaru koor am na ko ma woo démb ne ma waaw suukaru koor googu moom naka lay demee ma ne ko fii lii suukaru koor gi mooy ndimbalante gi nga xam ne yàlla di waxoon na ko Sayyidina Muhammad ne na ngeen jàppandoo di tëralandoo di yëkkateendoo ma ni kër gu nekk rek war nga am loo génne ci biir réew mi dajale ko ba mu baree bari ñu dem ba ci néew ji doole ci ñu jox leen ko loolu mooy lislaam waaye itam loolu mooy dimbalante ci biir diina ji télévision Futurs Médias ne am na ànd ak ñun safoo émission bu am Euh, ñu jox leen nag ñu ñàkk leen a jox daa ñu woote wane seen mbégte ñu ni ñooñu nag bu ñu jàkkaarloog ñu jël seen téléphone woote daa ñu leen jox seen sukkaru koor ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla nangu suñu koor ñun ñëpp ci darajey Sidina Muhammad ñu ñu ngi am tey nag gan gu mag a mag a mag mooy ki ma leen waxoon démb muy Serigne Alioune Sy tabarakallahu moom itam yor daara internat ju mag ca Kër ma Massar di jàngale alquranul karim yor fa ay xale moom itam moom la ñu dalal tey maa ngi ànd ak Cheikh Sidil Hadji Malick moom itam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 wa salawaatullahi wa salaamuhu ala ayni alxaqi allati tatajalla minha urusu alxaqaiqi wa ala alihi wa sahbihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim wa man tabiahum bil imaani alsaadiqi wal amali saalixi ila yawmi ddin mbokk yi xarit yi soppe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aleykum salaam wa rahmatullah maa ngi jël nuyoo bu tedd boobu ñu borom bi subhaanahu wa taala boole di ko jaarale suñu mbokk suñu xarit suñu soppe al ustaaz xaj papaan di la wax nga jotal ñu ko borom kër gi ak mbooleem personnel bi fiy liggéeyee di ko nuyu itam suñ mbokk suñu xarit alxaaji malik di ko ñaanal yàlla tawféex di ko ñaanal yàlla na yàlla gën a dëgëral baat bi di ñaan Pape Hann lii ngeen di taxawee ci diine lislaam mm-hmm. teeree ko gan gi màgg gu baax gii ñu borom subhaanahu wa taala baaxe mu nekk ci xéewalam yi mm-hmm. yéen bokk leen ci ñi nga xam ni ah taxawu leen li bëgg yal na yàlla subhaanahu wa taala doon leen dëgër ndax itam ku amoon màggal di nga waajal say gan ku amoon jàmm di nga waajal say gan mhm. boo xëyoon sax wara ñu ne dangay dañoo may soxna di nga waajal say gan mhm. boo doon ngénte noonu bale kër gi mhm. nettoyé fomp woo njaboot gi ñu waxtaan ndax lan ah comme gan yi dañuy ñëw war nañoo waaj soppiwaat kon nag gan gu jóge ci borom subhanahu wa taala buy ñëw jullit ñëpp war nañoo fuutaat xol yi fuutaat xel yi taxaw xool li gan gi bëgg ñu préparé ko ba bokk ci ñi nga xamante ni bii dinañu lëmb borom gërëm borom subhanahu wa taala kon daal maa ngi lay nuyu di nuyu xadra yëpp ya oustaz bismillah tabarakallahu si na alin eh, yal na yàlla nangul nu liñ ci yëpp yal na yàlla defal nu ko ci daraje Sidina Muhammad xajmari ñu ngi lay nuyu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi lay nuyu kal aada tere ziar bu baax a baax di ñaan yàlla yeewu nañu ci jàmm yàlla ñu gontu ci jàmm amiin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu Seydina suñu magu daara di ko nuyu bu baax a baax a baax di ñaan yàlla rek comme ni ñu koy faral di waxee lépp lu mu fi dégg yàlla dëppoog ngërëmu yàlla ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jël suñu ñaan rek wékk ko ci kaw ñaanam ñaan yàlla ñu yàlla nangul yàlla yàlla nu yàlla bu nu xiif xiifu neen ni ko suñu wayjur di waxee yàlla bu nu mar maru neen ci daraja Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey insha allahu taala maa ngi xaar léegi Serigne Khadim Kebe moom itam xam naa dana ñëw ca kanam waaye xaj euh, Malick tey euh, mansour mhm. rahman bi ma ne newoon démb mhm. dama koy denc ba suba insha allahu taala Oustaz Abdou Karim waroon na ñëw waaye dafa nekk ci tukki mhm. bu sori lool moo tax euh, xam naa du ñëw suba kon suba insha allahu taala ñu ànd rek ma àggale sut rahman waaye tey dañuy del delluwaat tuuti rek ñëwaat ci sunu invité bi di Sidna Alioune mu war noo waxtaanal cër bi nga xam ne yàlla jox na ko Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avertir bi yàlla pour bàyyi loo leen xel kilifa bi nu am te muy Sidina Muhammad sallallahu alayhi yàlla bind wenn saar woo xam ne mooy suuratul Ahzaab mhm. li ne yàlla waxtaan ko yàlla wax kook saxaaba yi mhm. waaye itam daan artu Sidina Muhammad ci bu xibaar ñëwatee nangaam lay doxalee mhm. loolu laa bëgg tey Sidina Alioune waxtaanal ñu ci kon bari mu ciy dugg Haj Malick nga ñëwoon ñu tuuti ci suuratul Ahzaab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 قدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءوا جاءكم فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم سنعلم الحمد لله رب العالمين yàlla na yàlla subhaanahu wa taala wàcce leeru alquran ci bërëb bii ñu ko jàng wàcce ko ci néeg boo xam ni tey yaa ngi taal TFM di ko déglu yàlla wàcce ko ci néeg boobu ci salon boobu ñu koy dégloo wàcce ko ci njaboot boobu nga xam ni tey wala borom kër googu nga xam ni tey woon na njabootam yépp ñu jàkkaarloo télévision bi di jàngat alquran yal na fa yàlla wàcce leeru alquran waaye yal na ko yàlla wàcce ci réew mi wàcce ko ci réew mi ko wër rëpp wàcce ko réewu jullit ñëpp oustaz saar woom fukki bunt la borom xam-xam yi ni mooy appartement yontu bi sallallahu alayhi wa sallam fukki néeg nekk ci mhm. waaye néeg bi ñu njëkk a dugg mooy al amru bi taqwallahi mooy premier bunt yi borom bi subhanahu wa taala tàmbali ko te mooy ni yii mu la nar a wax ku ragalul yàlla du ci jariñoo mhm. moo tax boo ko bëggee jëriñoo li nga njëkk a def mooy da ngay préparer sa xol jox ko borom bi subhaanahu wa taala mm-hmm. bu boobaa nag yàlla mooy ki lay ombatal boppam foo eggagoo nag lii doo lii ñuy wax ci mm-hmm. bunt yi mm-hmm. yow doo bokk ci ñi nga xamante ni dañ ko taxawe waaye oustaz taqwallah di ragal yàlla mooy lan ki may déglu su ma la bëggee wax mooy ni man Ali lépp lu ma nar def ci sofaan dinaa fexe ba làqatu sam papa du ko yëg mhm. am na noo xam ni su ma ko naree def dinaa làqatu sama yaay pour def ko mhm. am na loo xam ni su ma ko naree def dinaa nekk dugg foo xam ni sama doom du ma gis ma def ko mhm. am na loo xam ni su ma naree def soxna si nga xam ni sax maa ko takk indi ko ci sama biir kër doon kilifaam dinaa làqatu pour def ko lan moo tax mhm. sañoo koo def ci sa kanamu soxna te yaa ko yilif mhm. lan moo tax sañoo koo def ci sa kanamu doom te yaa ko yilif ndax ragal la ndax kersa la ndax am jom la loolay taqwallah allahu akbar loolu di la téye di la empêché mhm. ba nga xam ne loo ko bëgg-bëgg di nga ut pexe bu noo def ba sa soxna du la gis wala sa doom du la gis wala sa sëriñ du la gis wala sa xarit sax du la gis mhm. lan moo tax mënoo ko def ci seen kanam ndax dañoo lor yat tiim la ndax dañoo lor jaasi tiim la ndax dañoo lor fital tiim la déedéet dafa am jom bu nekk làmp jom bu nekk ci sa biir nga jom ma def loolu yàlla ne kon man mi lay xool di la déglu ëmbal ma kerse boobu nga ëmbal sa baay mhm. mooy taqwallah ëmbal ma kerse bi nga ëmbal sa doom ndax yàlla mën nga wax lu mu déggul ndax yàlla mën nga def lu mu gisul fan nga mën a làqatu ci kaw asamaan ak suuf def lu yàlla gisul nga ne mënul nekk mu ni kon bul defatu lu yàlla bëggut loolu taqwallah ba nga xam ne lépp looy def dañ ciy sédd borom bi subhaanahu wa taala mhm. lépp looy wax dañ ciy sédd borom bi subhaanahu wa taala ndax itam oustaz yowm al qiyamat mhm. bu ñu borom subhanahu wa taala di laaj di xisaab yëgoon ni ñaari kàddu rek la hmm? laaj yi ñaari baat la bu yàlla laaj waaw du weesu ñun ñaari baat yow aliyun si bi ñu mënee wax ak léegi loo fi wax yow aliyun si bi ñu lëgee ak léegi loo fi def yàlla du weesu ñun fii moo tax boo demee ci usul fiq dañuy wax ni mukallaf ñaari lañ koy àttee hmm. al qawl wal amal hmm. muy wax ak jëf yooyu la ñuy àtt nit moo tax bu nit ki contrôlé ñaar yooyu rek mhm. mucc ci lépp ndax yàlla subhaanahu wa taala ñaar yooyu la koy laaj kon si na Alioune bala maa ñëw baal ma rek euh, mbokk mi salaamaaleykum waaleykum salaam bisimilah sia allo kooku alum yàlla alum bu baal bi tuuti rek bismillah baal ma dama ba sëriñ Aliou alhamdulilah rabbil alamin te léegi jigi kilifa waxam warul bari warul waxam bari ñaar la ñu yàlla yi laaj ëllëg loo fi wax ak loo fi jëf wallahi bu ko defee boo bëggee lu baax waxal lu baax boo fi bëggee lu baax defal lu baax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa ñëw ci moom ni ko ñaari laaj laale lay laaj rasulullah ni ko lan la mu ni ko li la yàlla may xam naa ko juboo nga ak sa borom damaa bëgg nga wax ma ndax man àjjana laa jëm ëllëg wala safara laa jëm ëllëg ma xam ni may def mhm. lii moo fi indi mu ni ko nga ni mu ni ko damaa bëgg nga wax ma léegi ndax àjjana laa jëm wala safara laa jëm rasulullah jàng aaya ba ni ko innal abraara la fi naim bismillahi rahmani rahim innal abraara la fi naim wa innal fujjaara la fi jahim yaslawnaha yawma ddin wa ma hum anha bigaa'ibin وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله sadaqallahul aziim. sadaqallahul aziim. mën na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngat. ni ko ñu baax ñëpp àjjana lañ jëm. ñu bon ñëpp safara lañ jëm dama nga xool sa bopp. waaw akbar kon tontul sa bopp. fu la neex rek dem. ndax lan àjjana amagut safara amagut. fa man saa attaxada ila rabbihi maaba. lii alquran di wax xam nga léeg-léeg nit di wax ñu ne ko da ngaa soxor wala yii métti yi nga wax mais déedéet xam nga lu soxor. mooy mooy jamono bi muy dal wala bàyyi nit mu nekk ci lu ko neex ba ëllëg lii fekk ko ci mais li may wax nii dikk déedéet kon kay kooku dafa baax yoon wi dafa am pax di la wax pax ma ni mu xóote di la wax pax ma boo ci duggee la la ci nar fekk ci ay jafe-jafe mhm. kooku koy dafa baax wax la bul ci jaar waaw wax la bul ci jaar mbokk bi salaamaaleykum nga wala alem boobu. bàyyi ma yëkkati kàddu gi jóge wala alem boobu. allo. waaw bisimilah bisimilah. wala alem boobu. alem boobu. Babacar baa ma yokkal ma rajo bi fii tuuti euh, micro bi fii tuuti rek ma dégg. wala alem boobu. allo. waaw. waaw bisimilah bisimilah. waaw baal la ma ngeen yokka ma baaful bi fi tuuti rek may dégg waaw bisimilah suñu baab mhm. si naam li baal ma dégg kon taqwallah ah bo allo bisimilah mhm. waaw tax nag borom bi subhanahu wa taala commencé ñun ci taqwallah ndax lan moo tax nga defaru waaye ku ragal yàlla bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ragal yàlla bëgg Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax du ñu la yàlla pap mhm. du ñu la yàlla de yàlla amatu ñun affaire de yàlla waxutu ñun de yàlla bëgguñu de yàlla faalewuñu yonent yàlla Muhammad rek la bëgg sallallahu alayhi wa sallam eh. yonent yàlla Muhammad rek la faale mhm. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek la waxal du ñun ak yàlla ñun ak yonent bi la laqad jaakum rasulun ñu kon ñu nag yonent bi la mhm. moo tax léeg-léeg bu ma waaji ne man daal yàlla rek laa bëgg gis wala duma ko jaam wala xamoo la xew du ñu nag yàlla déedéet te ko rasulullahi doyut looy doyee yàlla allahu akbar te yonent bi sa yàlla jommaluñu jaaxaluñu yónni wuñu ku ñu xamut moo tax mun a min anfusikum romb fi malaaka yi romb fi jinne yi yónni ku mel ni ñun di nit ni ñun di nit ni ñun di def comme li ñuy def te du ñun lu tax pour ñu mën a def li muy def mën mën ko roy mën ko roy sallallahu ndax ñu nit bu doon roy jinne fu mu jëm kenn xamu ko mm. bu nit waroon a roy malaaka fu mu jëm mënu ko ci mbaaxu yàlla nit nit rek la mën a roy mu mm. def fi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni kooku ma leen boole muy sama waaji nag te bokkut ak yéen am na ay xorma yu war a dox seen digganteeg moom sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni fattabi'uni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurun rahim qul atii'u allaha war rasul فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم moo tax mooy jaaruwaay ba da nga bëgg yàlla bëgg la mm-hmm. bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da nga bëgg a dajeeg sa borom toppal ci ginnaaw rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. beneen yoon boo jël keneen koo àndal ku da rasulullahi gars yi danañ egg bàyyi la ci bitti Mhm. yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la xajoog xoolal li ñu defal yàlla yëpp lu ci gën a rëy julli julli jullee ci gën a rëy mhm. boo doon julli tey sa baay woo la nga wuyu sa julli yàqu na mhm. sa ndey ji la la nga wuyu sa julli yàqu na da nga sa sëriñ bi la jur sa sëriñ bi la jàngal yar la bu la woowee fekk ngay julli nga wuyu ko sa julli yàqu nga dégg turu Seydi Xaaji Maalik radiyallahu mhm. mhm. anhu julli ga yàqu ñu ne moom sëñ Tuubaa nga ne Mbàkke julli ga yàqu ñu ne Cheikh Abdoulahi Niass nga ne radiyallahu anhu julli ga yàqu ñu ne Abubakar ibn Siddiq nga ne radiyallahu anhu julli ga yàqu imam Ali nga ni karamallahu wajha julli ga yàqu mhm. nga dégg ñu ne Muhammad nga ni sallallahu alayhi mu dong laa xajoon foofu ci biir julli gi ci biir julli gi sa julli nga continuer ñu continuer sallallahu alayhi wa sallam moo tax am na axdar yi ba mu koy jàngale mhm. suñu wajul xaajo omar si mos nañu ko tekkil mu ni boo déggee zikru muhammad te yaa ngi ci si julli mhm. mu ni fala shay'a alayhi dara lu gën tegganil sallallahu alayhi wa sallam amu ca waxul fala shay'a alayhi dara nekku ci de mu ni fala shay'a <laughs> alayhi amul dara dara dara dara dara lu ëpp teggin rek nga ni sallallahu alayhi wa sallam wa man sami'a zikra Muhammadin fi salatihi waaw mu ni nga nga nga julli ci moom mu ni fala shay'a alayhi xam nga loolu la téere bi wax mm-hmm. fala shay'a alayhi boo koy teg da nga naan fala ba'sa maanaam dara newu ci sëriñ daan ni nag fala ba'sa mooy ni fala fala shay'a alayhi mooy ni dara dara dara dara lu gën a jekki lu gën a teggin li nga ni sallallahu alayhi wa sallam amul ci biir julli ci biir julli gi moom dong la yonent moom dong la yàlla toloore moom dong la yàlla mën a mën a bokkal moom dong la yàlla mën a àndal keneen ku dul kooku nekk ci ginnaaw. moo tax sëñ Cheikh al radiyallahu anhu sëñ Cheikh yàlla yàlla guddal fan al maktum. Mhm. nee na weddi wu ma de nit mën na fi jóge dem ci boromam direct waaye bu yeggee du ko nettali ndax du ko jig. Mhm. waaw ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi waaye kanam yonent bi direct ci yàlla ku ko def doo ko nettali. amul du la jig moo tax mu am na ay xorma yoo xam ni war ngeen ko jox ci seen diggante yonent bi sallallahu alayhi wa muy seen kilifa. Mhm. ay xam nga loo ciy jàng. ak kilifa yëpp foofu nag moo jara taxaw pap aan mhm. réew mi am na loo xam ni mhm. nan lañ ko waxaat mhm. muy ni ñàkk kilifa wóorut te jamono ngi toll foo xam ni xorma yi doxoon suñu diggante kilifa aada yi kilifa réew mi kilifa diine yi ñi ngi koy xotti te ku amul kilifa jinne di sa kilifa mbokki mi ngi noonu ku amul kilifa jinne di ko kilifa ñu ngi xoote xormay kilifa yi sëriñ bi nee ñu delluwaat ci alquranul karim mbokk mi salaamaaleykum bismillah bismillah allo allo waaw gis nga kilifa yàllaa koy def moo ni na bàyyi na waajur yi nekk kilifay doom yi na jëkkër yi nekk kilifay soxna yi na sëriñ si nekk kilifay taalibe yi mhm. na président de la république nekk kilifa réew mi mhm. na kilifa diine yi nekk kilifa jullit ñi gis nga loolu ko borom subhaanahu wa taala defee mhm. bu amut duñ am luñ bëgg suñ borom duñ am luñ bëgg ci réew mi ndax tam muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem na mais rasul fi la des mooy risaala bi demut de moom Sayyidina Muhammad Muhammad jëmm ja mhm. faat na waaye risaala ba anam mu ngi fi fi la ko yàlla bàyyi salaamaaleykum allo bismillah ñu ngi la koy delloo kooku ma la Alem Mbuub ah Alem Mbuub xaalim Alem Mbuub baa ma yokk kàddu gi tuuti bismillah bismillah uh-huh. aha ñu ngi la koy baax uh-huh. alhamdulilah di. jërëjëf jërëjëf. waxtaan. Mhm. alhamdulilah. fooy wootee nii. maa ngi wootee yëmbal. yaa ngi. waa kay waa kay waa kay waa kay. alhamdulilah. alhamdulilah. tabaarakallah bisimilah. Mhm. Ah? jërëjëf jërëjëf jërëjëf. alhamdulilah. jërëjëf jërëjëf alhamdulilah. bul coupé mu jël ci suuf bul coupé incha allah bisimilah bisimilah sëñ Aliou bi mhm. fi la ko bàyyi mhm. borom xam-xam yi ko aawu taawu ko mhm. ndax damay wax ni gis nga réew mii di Sénégal gisuñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisuñu saxaaba yi gisuñu benn taabiya taabi taabii taabiin gisuñ ko waaye mag ñu xuusoon ci àll bu lëndëm kenn gungewu leen ñu dem daj lu nekk ba tey jii xaaj Malick alquran ji muy jàng mm-hmm. boo demoon màkk moom rek la ñuy jàng mm-hmm. Mm-hmm. boo demoon Medina moom lañuy jàng te kon naka la def ba xaaj Malick jot ci tey foo wax ci alquran mu ubbeeku am nañu ko liggéey am nañu liggéey loolu ñooñee buñ leen joxut xorma bi ñu jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxuñu dëgg ndax waa ji def ni ay bu sam pàpp doon dund lu ma digal dinaa ko def lu ma tere dinaa ko bàyyi mu ne ko an sa taawu baay mu ne ko mi fi mu ne ko waxoo dëgg koo xamante ni bii faale woo sa taawu baay bu sa baay doon dund itam doo ko faale. allahu akbar waaye koo xam ni itam joxoo xorma nit yi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk diine tey jii ñu xuus ba def ko fi. Mhm. bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dund dund ak yi te ña leen ñàkke woon teggin rek ngay bokk. allahu akbar mhm. ñi leen joxaat teggin joxaat leen xorma joxaat leen wàccuwaay yonent bi sa alayhi wasallam. Mhm. buñ gisoon yonent bi itam wàccuwaay boobu lañ koy jox. ndax itam yar sa bopp ba mën a topp ci nit mhm. ci dëgg mhm. jikko la mhm. waaye am na ñoo xamante ni bi parce que rëy mooy ñàkk nangu dëgg te am na ñoom dal ci réew mi nan delluwaat am kilifa ci diine bi diine mënuñoo toog lu neex waay rek wax ci lu neex waay rek def ci du dëgg il faut ñu amaan ay delluwaay joxaat kilifa diine yi di leen déglu toppaat ci seen ginnaaw ndax ñoom ñëpp mission ki ñu ki ñu doxal mission mooy rasulullahi wa rasulullahi te inna rasula la qadri al-mursal mm-hmm. mm-hmm. ñoo fi nekk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xorma boobu nañ leen ko joxaat te ñi ngi koy dagg mu ne diine du am sëriñ wala ku man sawa rasulullahi waxtu ñu ne yonent bi ab yonent bi ku ne am na fun la jaarale pour defar la mais dafa waxoon ni borom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonent yi ñoo leen fi wuutu kon kay xorma bi ñu jox yonent bi moom lañu war a jox borom xam-xam yi waaye itam minit yi muy même ñi yor réew mi yonent bi waxoon na mooy suyutul ard suyutullahi fil ard mhm. pouvoir boobu ci yàlla lay jóge lan yorit du neen il faut ñun ñëpp joxaat autorité yi seen seen xaq mhm. donte ñi ñuy waxee kilifa diine ni leen yéen it fexe leen ba teg seen tànk ci rasulullah si sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa kilifa réew mi ñu ne góorgóorlu leen mais waxaat li réew mi yëpp ñu leen nan joxaat nag ñi yor réew mi itam seen xaq. xam nga a llah wa atiu rasula wa ulil amr. Mhm. parce que ñàkk mhm. teggin ak ñàkk kerse bi ngay dégg léegi ci réew mi di ko dégg ci rajo yi di ko dégg ci télévision yi a an ñëpp war nañ cee wax te du diina nag de. Mhm. diina xorma la xam kerse la xam li ñu war a wax ci biir ak li ñu war a wax ci biit waaye ubbi rajo ubbi télévision lu waay wax lu neex waay wax ngay dégg lu ne léeg-léeg nga fay sa rajo te doo ko tey. war nañ cee wax. Mhm. bu fekkente ne nag nit aada yi mënuñ cee wax na nit diine yi xam ne lii du diine lislaam ñu yaraat kàddu yi. xam ne lislaam bi ñu ne ci fulla la mu si dox. ci fulla lay dox. Mhm. ci ay teggin lay dox. Mhm. waaye nag du du du boo xam ne dafa tasaaroo may la autorité lu la neex wax. wala lu la neex def il faut ñu amaat ay limite joxaat kilifa yi itam muy dëgg. jigéen ñi itam ni mu a daggee nga xam ni léegi. jëkkër amatu benn kàddu ci biir këram. di wax ay égalité lu kenn xamut mhm. góor mën naa décider jigéen mën naa des décider l'islam mhm. gisewu ko woon noonu mhm. nan delloowaat kilifa yi jëkkër yi jëkkër yi itam jëlaat seen responsabilité doom yi itam du ay njabootu kanaara ay nit lañu nan delluwaat diggalaat seen ndey seen baay ndax itam am na loo xam ne ñu ngi koy dagg te dëpp ci école ba nga xamante ni bii doom léegi am na liberté boppam fu mu koy jëlee doom warul am liberté boppam jabar warul am liberté boppam nel ab jullit du am liberté fii mi ngi magu nekk jaam mhm. ab jaam kay nu muy amee liberté te goree gu noonu la waaw waaw kañ la ñuy gore jamono buñ dajeeg borom bi subhanahu wa taala buur moo ñuy goreel te bu ñu yàlla goorelee xam nga fu ñu jëmee déedéet aljanna ah kon daal li moom bu déggee si naaw mooy fii kenn du wax ni du ma sa morom kenn du ko wax da ngay bàyyi ba yàlla jox kee passeport aljanaam mhm. jox kee passeport safaraam mhm. muy dem nga gestu ko ne ko hey xam ngeen du ma sa morom mhm. kon ngor gore dëgg fële lay amee fële lay amee mooy nga dugg biir aljanna mooy tekki yàlla nañ ko yàlla defal amiin yaa rabbal alamiin mooy tekki xam nga li ngay gis ñu diw tekki na mhm. déedéet sama moom si xaaj maa ko waxoon radiyallahu taala anhu mu ni déedéet àdduna kër yi takk la alaaxira mhm. la ñuy tekkee alaaxira lañuy ñuy te fii ak tekkee guñ sa téere jëf xam nga woon ndax tekki nga am tekki woo mbokk mi ngi noonu fii tekkee guñ sa téere jëf xamoo ndax tekki nga wala tekki woo mooy Serigne Alioune si mbokk mi salaamaaleykum bisimilah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah tur bi naka la. waaw maa ngi lay. alhamdulilah. waaleykum salaam. bisimilah tur bi. alhamdulilah. Ousseynou Fall. Fall fooy wootee nii. jàmm rek. Ousseynou Fall. fooy wootee fooy wootee nii. waaw. Touba. waaw di rafetlu waxtaan bi rek. jërëjëf Fall jërëjëf jërëjëf. Ah. jërëjëf Fall ñu ngi nuyu waa Touba yëpp. alhamdulilah. tabarakallah Fall Fall. bisimilah bisimilah. Ah, waay waay sëñ Ousseynou bëggoon naa la jox sukkur koor kat waaye dem naa bisimilah seen Aliou. Mhm. waaw. Mhm. xam nga si xajma da ko way dafa wax ni xuqa ala tijaari. Mhm. an laa tufaaxiru mhm. qubayla rabaaxin wal xisaabu uqul mhm. ndax gis nga commerçant bi chargé ma magasin ba mu fees dell taxaw ci buntu magasin bi ni man réussir naa mu ne ko teel na lool jaayagoo fi lakk leen fi lamb leen fi te mooy ki chargé ba mu fees de waaw ki defagul dara na allahu akbar moo tax même feesal xeetu xam-xam yëpp ak njub yëpp mais ndax yàlla nangu na ko Mhm. ah ndax yàlla nangu na ko imam ali kat laa yaakaar ak mbaax waaye li muy def ndax yàlla nangu na ko kon taxaw naan tekki na mu ni teel na nañ bàyyi ba tekki téere jëf yi ku dugg aljanna tekki nga ku dugg safara torox nga allahu akbar mhm. kon nag bi ñu njëkke muy ragal yàlla mhm. muy nan joxaat xorma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye joxaat xorma képp kuy kilifa képp kuy kilifa nan la jox xorma say way jur jiitu ci say mag jiitu ci sa sœur yi jigéen yi jiitu ci a aima yi nekk sa gox jiitu ci autorité yi gox yi met bat commencé ci sef de quartier ba nga jox ko xàq bul ni du kenn aha kenn la imam du kenn aha kay kenn la ministre yi du kenn aha kay kenn président bi dara aha kay dara la tey lupp ndey lu lax lax lax lax ca la toog ju la doom di toog pour nàmp kon réew mi ak ku ko mën a yor mooy suñu président rek duñ mm-hmm. dem buuru màkk mu nekk suñu président mm-hmm. ki fi jiite la mooy doon président mm-hmm. kon nañ ko xormaal nañ ko gëddal nañ ko jàppale ndax réew mi am na président war a def mais ñu ñekk ci réew ñu am lu ñu war a def te itam président lu bari lu mu war a def defagu ko waaye réew mi tam ñi ko nekk lu bari li mu war a def defagul ko moo tax li koy sooxe si ñi jiite la ak ki ñu jiite yëpp moo tax bu defaroo am ñëpp a war a defaru moo tax alxuraan ñëpp lay Mhm. mais nan waat waaye nan joxaat nit ñi tam seen xorma seen gëdd ak xorma ko defee kon comme appartement dafa bëri te fukk la mhm. ñu ngi woon ci tax wallaahi ba léegi ragal yàlla te ragal yàlla boobu itam mhm. ba te topp ñaareel ba may adabul muminina maa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam teggin yi ñu war a jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci topp sunnaam moom sallallahu alayhi wa sallam xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma la waxee papa nan laay def ba jox ko xorma xam nga loo may tontu toppal sunnaam waaw gis nga sunna bu dàqoo rek aada ak bidaa mooy taxaw mhm. bu aada ak bidaa rek sunna yonent bi sallallahu alayhi mooy taxaw mhm. kon jëlal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk sa dund nga jox ko xorma ndax xorma mooy li ma la digal yow sa kilif sa kilifa li mu la digal mhm. nga di ko def loolooy jox ko xorma li mu la digal nga ñàkk kaa def mooy ñàkk ko mooy ñàkk ko xorma te ñàkk xorma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wóorul bu ko defee mhm. beneen bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñëw ci jikko yi jikko yi mhm. mooy ni xam nga réew mi tey ñëpp ay wax te gis nga wax dafa garaaw te itam senegal léeg-léeg ñu wax la ni leen miir yi sax dañuy wax loolu loolu dañuy wax xam-xama feddali dëgg la de du waxantu de mhm. léeg-léeg ñu ne la milliers garab yi dañuy wax xam nga noo koy gëmee. Hmm. da ngay jàng xisatu Zul Qarnayn hmm. ñu koy wax Alexandre sori sori Sall maa ngi koy nuyu yàlla na ko yàlla yokku wér. Alexandre le Grand. le Grand. Hmm. ñaar lan waaye ki jub ki la ñuy wax ki baaxoon te ragal yàlla dafa am ku bon ak ku baax. ki juboon yàlla da ko defee ñaari béjjën ci bopp bi. mu fexe ba ay ba kenn xamu ko. mu doon buur am xam-xam xàmmee am alal yërëf réew ma mhm. waaye li ma lay wax mu am bis dëkkandoom bëkk néeg xam nga nit xorma toujours ma la koy wax rek sa papa lu mu la ñingal boppam waroo dugg ko néegam te fëgguloo mhm. sa yaay lu mu la ñingal boppam waroo dugg néeg te fëgguloo mhm. say mag noonu te yooyu wax naa la ci xorma yi ñu war a jàngalaat xale yaraat leen ci ci la bokk ñëw ci néeg rek ni kat teg ubbi mhm. bëkk néeg ba moom la def sëriñ ba mhm. fekk sëriñ ba nag lam doon takke bopp ba dañ mhm. mu gis ñaari béjjén ya mu ne ko kaay mu bu mu duggee gis ko ci xaal bu ko musul gis daal di ubbiwaat bunt bi di dem mu ne ko kaay woo ko mu ñëw mu ne ko tëjal bunt yi mu tëj mu ne ko toogal mu ne ko gis nga lii nga gis mu ne ko ah mu ne ko kenn musu cee teg bët bis bu génnee dama lay rey Mhm. kenn mësu koo gis ku dul yow fu mu ko dégg ci àddina yow la sa bakkan dinaa ko faat est-ce que ni ko demal mhm. mu dem mhm. buñ demee nag biir bi metti ndax bëgg koo siiwal ndax bëgg koo siiwal mbokk bi salaamaaleykum allo allo bisimilah man nga ñu ngi dégg bisimilah tur bi waaw mbaa ci xumul la ah maa ci xumma. xumma xumma waa fooy wootee. maa ngi West Foire. West Foire. bismillah bismillah xumma xumma. waaw di dugg rek di leen jërëjëf jërëjëf. ñu ngi ñaanal sama doom yi toog. jërëjëf jërëjëf ma kontaan si yéen saa ak ñëpp. ak Fatou Ndiou Fatou Anne. jërëjëf Koumba Koumba. dama leen jërëjëf jërëjëf Koumba. waaw ah, di leen ñaanal yàlla yal na bul coupé bul coupé mu jàll ak sa koor. xam naa bu fekkee bu fekkee sëriñ Khadim Kebe tabarakallahu agsi na euh, ñu fexe rek mu agsi moom itam incha allahu taala waaye mu bàyyi si naa àggle xisa bi waaw waa ji toog sëriñ euh, bi ne ko bu mu siiw comme wax bu mu siiw biir bay metti biir bay metti ñu ngi nuyu suñu yaay jooju mbàccoo xumma mhm. suñu rakk nijaay la ñu ngi koy nuyu bu baax baax Ouest Foire di nuyu doom yëpp xaw a gay ak ñoom pend ñëpp mhm. tabarakallah mhm. léegi biir bi métti ndax gis nga nettalikat ab fenkat fii waxut wala nettaluwut moo ko bëgg a waccoo yam dëgg la ko mën a téye mu am ñaari problème bëgg naa nettali li gis ndax moom doo nga ko xam mu njëkk a jox xibaar yi ne rajo yeeg télévision di wax ni exclusivité mhm. maanaam ñoo ko njëkk a wax mhm. mu bëgg loolu dal ko waaye mu xam ni buur bi fawut da koy rey mu am nag ko ñaari mettit muy ni li bëgg a génn te génn te bu génnee mu dee mu dem seeti benn borom xam-xam bu baax ni ko man kat dama am problème mu ni ko lan la mu ni ko dafa am lu nekk sama gémmiñ gii su ma ko wa su ma ko génnewut damay dee te su ma ko génnee dee nu may def mu ne ko nga ni mu ne ko li nekk sama gémmiñ gi daal su ma ko waxee dee su ma ko waxul dee nan laay def mu ne ko dangay dem ci àll bu kenn nekkut nga gas ba mu xóot nga dugg ci biir kàmm gi wax ko boo paree suuraat kàmm gi mu ni boobaa sa biir dina dina tane mu def ko dem ba ci àll bi gas ba mu xóot mu daal di dugg ci biir bu mu duggee ci biir daal ne buur bi daa am ñaari béjjën daal koy suuraat ñu teg ci ñetti fan wala ay ay bis benn sàmmkat yor riiti di riiti riiti ga di wax ni buur bi daa am ñaari béjjën waa ji wayu ko de mais la muy riiti dul xaar na nee na dégg naa galañ nga la galañ riiti ga di wax mooy ni buur bi dafa am ñaari béjjën ndax boom xam-xam la woon mm-hmm. mu woolu ko mu dikk mu ne ko yow tey la sa dund yam fii mu ne ko lu xew mu ne ko waxoon naa la ni la nga gis boo ko waxee dinaa la rey te dégg naa ko kon yow la ndax yàgg na ci man musuma ko dégg bi nga ko gisee la siiw mu ne ko waxuma ko mu ne ko wax nga ko jàpp ko nar koo rey mu ne ko waa léegi xaaral mu ne ko ah mu ni ko bu dee génn na de bi ma koy wax anam gii laa ko def daal koy daal koy nettali fi mu jaar ni ko dama seeti woon diw muy borom xam-xam ma wax ko ko mu digal ma lii bi ma koy wax nag kenn fekkee wu ko damaa dugg ci kàmm wax ko mu daal di koy tëj ni ko bu dee loolu dinaa ci xam dara daal di woolu sàmm mu dikk mu ne ko yow sa riiti gi am na lu muy wax lan la mu ne ko wax mu ne ko man de damay riitari du lu ma am riiti gi dañ neexaa laa ci xam waaye xaw ma ndax riiti guy wax man xaw ma ko ko am na riiti giy wax lan la mu ne ko xaw ma ko mu daal di koy indil daal ne ko léegi riiti gi fan nga ko defaree mu tegtal ko ni ko maa ngi ko defaree maa ngi maa ngi jëlee bant maanaam bant riiti gi foo ko dagge mu ko àll bi mu ko daggee mu nekk àll bi waaju duggoon gas fa ni buur bi dafa am ñaari béjjén mhm. foofu mu ko foofu mu jële woon bant riiti gi foofu la ko waaju waxee woon ndax ñàkk maandu ñàkk téye làmmiñam ñàkk téye làmmiñam bi mu ko waxee bant ba moo ko jël miir yi ci bant ba di wax loolu. allahu akbar. ah kon loolooy miir yi dañuy wax. miir yi dañuy wax. bant yi dañuy wax garab dañuy wax. est-ce que yi. yow nag yaa ko dul dégg yaa xam la ñuy wax yaa ko wax. bu ko wax. bu ko wax mbokk mi ngi doon seen Alioune Sèye Ngok nu ngi koy ñaanal yal na yàlla gën a barkeel xam-xam bi ci daraje Seydina Mouhamed euh, ma dalal Serigne Khadim Kébé xaj euh, Malick mhm. xam naa euh, avant sëriñ xaarim di ñëw mm-hmm. avant ayat alxuraan bi sëriñ bi di wax nga jëlal ñu ayat boobu mm-hmm. ma yeewi la mm-hmm. yaa ngi ci soxla ba suba sept heures du matin incha allah ñu dem ba jël suratu rahman continuer ko ma dalal sëriñ xaadim Kebe mi jóge ba tubaa di sunu xarit waaye itam di sunu soppe di sunu lépp di njabootu Seexul Xaadim man aay ma ñu wa in وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله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 عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون sadaqallahul aziim sadaqallahul aziim tabarakallah Haj Malick ma bàyyi la nga tàggatoo. incha allah jërëjëf oustaz Pape. Mhm. kontaan nañ bu baax a baax a baax. incha allahu xam naa nekk ci ay soxla rek. Mhm. waaye suñu sañoon toog déglu am na ñu ko waaye message li ma Haj Malick moom bu mu dem. jërëjëf ah waaye tey nag na ma jégal rek <laughs> tey incha allahu wa salaam jàpp seen Ali. ñuy kontaan bu baax ci xam-xam bi. macha allahu taala. incha allah dinañ ko eggali suivre Pape ñu ngi lay gërëm di ziar bu baax di nuyu suñu kilifa alxaaj Mouhamadou Mansour Haj Mansour Dieng mu ngi lay ziar di la béggee bu baax a baax yónnee ay yónnee mhm. yónnee ay nuyoo mhm. Serigne Baara Ñang yónnee na ay nuyoo xaaja waaw xaaja bintu Ñang mhm. sëñ Baara Ñang ca Kaolack xaaja bintu Ñang soxna Xadijatu sa kanab ñu ngi lay nuyu bu baax a baax baax di leen ziar ñu ngi nuyu ñëpp waaw aji Mariam Diop nuyu na la ca zone A kontaan ci yow bu baax a baax a baax a baax moom ay rakam Adama ak Penda ak euh, kilifaam day sali kon ko defee incha allahu ñu ngi tàggu xam naa bu suba ak jàmm incha allahu taala incha allahu taala incha allahu taala Haj Malick noonu la def tàggoog moom bu suba mm-hmm. kon euh, ñu dem ci publicité bi rek mm-hmm. ñëwaat léegi dalal sunu gan googu sunu xarit boobu mm-hmm. àggaleeg sunu sëriñ sëriñ Alioune si moom itam mu continuer waxtaan wi incha allahu taala